ربنا إنك أنت العليم الحكيم إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waaw
mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw sant sunu boroom subhaanahu wa taala mi ñu may ñu dajewoon fii waxtu wi daaw ñu dajewaat fi ren noo ngi koy sant te di ko ñaan yal na nu yàlla may ñu daje fi ay déwén yu bare bare bare bari sunu daje ren yàlla bu mu nekk suñu mujjante lu daje noo ngi ñaanal mbokk mi nga xam ne moo bëgg aw yiw ba tax li ko yàlla wërsëgal mu dajale ay mbokk jullitam leel leen ngir jëmmi yàlla ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla defal ko barke defal ko xol bu sedd ci njabootam yàlla yokk wërsëgam waaye ginnaaw gudd fan mu leel ko ci meññante àjjana yi moom ak njabootam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man at'ama musliman jaa'ian at'amahu llahu min thimaaril janna ku leel ab jullit bu xiif yàlla dina ko leel ëllëg ci meññante àjjana yi ti ki wax loolu sunu boroom moo gaarante làmmiñam kaste ko ci dëgg munta wax lu dul dëgg mu ne wama yantiqu anil hawa lu mu wax dëgg la moo wax ne ku leel jullit bu xiif yàlla dina ko leel ëllëg ci meññante àjjana yi kon mbokk mi nga xam ne moo leel tey ay mbokki jullitam ngir jëmmi yàlla yal na yàlla defal ku fan wu gudd wu ànd ak wér ak njabootu barkeel waaye yàlla leel ko moog njabootam ëllëg ci meññante àjjana yi mbokk yi nga xam ne ñoo wuy si ngir jëmmi yàlla sunu boroom moo wax ne su leen seen mbokk woo ci lu leen di dundal luy dundal seen pas-pas di suuxat seen ruux na ngeen ko wuy ji kon ñëw ngeen wuy si ngir jëmmi yàlla yal na yàlla fay leen payu ku wuy ji woote bi yàlla waaye ngir nun ñépp ñu jariñu foog ñu ànd kuk dal ànd ak teewlu ñu jàpp ne jataay bi jataayu jaamu yàlla la fu ñuy jaamoo yàlla fu nekk nag na fa nit mën a amee aw yiw noonu la fa nit mën a amee safaan kon déglu gi jaamu yàlla la waaye ñàkk déglu gi itam safaan la kon ñu ñaan ñun ñépp ñu sellal suñu yéene déglu suñu mbokk mi nga xam ne waxtu wi daaw daje woon nañ fi ak nun muy oustaz Saïd Ly kenn du leen ko présenté ndax kenn la ci jëmm yi nga xam ne seen guddeeg seen bëccëg yépp jox nañ ko lislaam yal na yàlla wéral ko yal na yàlla kàttanal ko yal na yàlla diri làmmiñam ci dëgg ba li mu nu yéenee wax mu mel ni ko yàlla bëgg akub yonentaam mu ngi bëgg a wax ak nun ci ki yàlla yónni ci nun àdduna bi yépp wala réew mi yépp ak yeneen réew yu bari tey jii ñu ngi jàpp ne mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna waa dikkug yonent bi lan lañ ci mën a jàngate ndax ñëw na ci jamono boo xam ne fekk na àdduna fees dell ak lëndëm bi ko yàlla yoon fekk na àdduna fees dell ak lëndëm àdduna bi dem di dox di dox di dox di dox ba yegsiwaat fii mu yegsiwaat kon bu ñu dajee ci guddi goo xam ne dañu ne dañuy mooy guddi ganek yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam àdduna ma ne kooku ak ñëwam war nañoo jàngat lan lañ ci war a jëlee ndax bu nu wanee ginnaaw guddi gi nu mën a defaraat doxin yi mën a defaraat dëkkin yi mën a defaraat dundin wi ndax nu mën a fekki ëllëg soppe bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu nekk ci aljan saxaaba yi de ñoom dañoo dëppale woon seen dund ak dundam Bilal ibnu Rabah bi mu feebaree dem ba feebar bi tar jabar ji tiim ko jooy mu ne way tiis wi Bilal nekke Bilal ni ko maa bég ëllëg danaa dajeeg yonent bi ak saxaaba yi noonu mu ko waxee bi jant soo la Bilal gaañ fekk yonent bi ak saxaaba yi kon nu it jàngat dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sunu dund nu mën koo dëppale ak ak ak dundinam ndax moom la yàlla yónni ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ku baax ku nekk nangul nañ la sag baax waaye nag muhammad la yàlla yónni ku baax ci kaw suuf ku nekk nangul nañ la sag mbaax waaye nag nañu nangu ne muhammad la yàlla yónni muhammad la yàlla royloo jaami sallallahu alayhi wa sallam lu nu guddal dañuy jox oustaz Saïd mu ñëw ak ñun ci li nga xam ne moom la ñu indil ko defee déglu waxtaan wi nag mooy sax buy paree nga mën a am loo laaj wala loo yokk wala itam loo dajale kuy bu jàggee ne daje bi reer bi rek naan yu sedd yi mu jeex déedéet waaye dañ ko dugg jëli ay njëriñ yoo xam ne buñ ko jógee dañ ko mën a jëriñoo yàlla nañ ko yàlla defal ci jotaay bi kon oustaz Saïd ñoo ngi lay jox kàddu gi
جزاكم الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله جاء من قبل ربه حاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi maa ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla boole jéggal ñoo ngi leen di ndokkeel di jégglu ci tardement bi aajowul suñu coobare di ñaan tuuti rek mbokk yi jigéen yi man duma tàmm di wax waxu yonent bi wala waxu lislaam di dégg ay baat saa yi ma ko déggee damay taxaw balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi nag dem ba foofu parce que man li may wax chaque jour daf ma daf ma yitteel daf ma fullaal daf maa ñor loolu moo tax chaque jour du ma bëgg di waxtaan foo xamante ne waxtaan dafa am balaa may départ nag moo wax leen loolu léegi ñu ñu déggante noonu dañu ñëw di fàttalante ak yéen bokk jullit yi juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yan leçon lañ ci war a jëlee duruus wa ibar ak yan kéemtaan ñu xool ndax yonent bi yàlla yónni woon ci ñun ndax moom li ko yàlla yónni woon ñun lan lañ ci jëlee ak jàpp ne ñun tey guddi yi ñu war a tiitaru ci guddi yonent bi mooy lekk rek comme li ñu lekkee ni naan c'est bien beau après mu daal di jeex ñu daal dem ñu ne démb day macha allah guddi ga neex na. jullit yi damay faral di wax li leen tardé ci seen àddina tey mooy événement islam yëpp ñoom luñ ciy jëlee mooy lekk ak naan. bu dee tabaski kenn du xalaat lu taxoon ñuy tabaski déedéet yàpp bi yéey xar mi nga jënd. duuf na ñu lekk ko mu jeex. korité nag bi duuf na rey nañ ko séddoo nañ ko lekk nañ ko jeex na. ceet kazalika kenn du xalaat lan moo tax yàlla ne woon nañ sëy ngénte kazalika kenn du xalaat doom ji ñëw lan moo ko indi kan moo ko yabal lan lañ yan taxawaay lañ war a taxaw ci moom déedéet ñun suñu dund yëpp ñun jullit ñi lekk ak naan lekk rek duñu xalaat ci xew-xew yi islaam yi naka noonu ci bis bi nga xam ne mooy bisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax borom xam-xam bi mu ne la shakka anna milaadu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa milaadan lil hidaaya sikk nekk ci ne juddu yonent bi judd la goo xam ne yonent dafa ñëw pour jubal addina bi milaadan lil hidaaya loolu moo tax yonent bi ñëw waaye ban hidaaya hidaaya am pour mboolem adduna bi yëpp jub loolu moo indi yonent bi ne ko yonent bi ganeem addina luñ ci war a njëkk a jàngee ñun jullit ñi mooy yonent bi yàlla da ko yónni pour mu gindi addina bi wa izhaari siraati almustaqim ak leeral yoon wi yàlla bëgg nit ñi jaar ci yàlla dafa bind ay nitam bëgg ñu jub waaye sàkku ci yonent bi ne leen teg ci siraatal mustaqim loolu moo tax yoon woowu guddeeg bëccëg ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala pour ñu teg ñu ci suñu waxtu yu juróom mu ne wa ihya lil bashar li tax yàlla yónni yonent bi pour dundal doomu aadama yi pour nit ñi dund dund nag nekkul lekk ak naan wala déedéet am ruu dafa am lu war a dund ci doomu aadama loolu su dundul doomu aadama donte ne mu ngi dox dafa dee fam buum gu war a jokk diggante yàlla ak doomu aadama buum googu nag bu jokkuwul doomu aadama lekk fi di naan góor la wala jigéen la mag la wala ndaw la mu lekk fi di lekk di naan ñu jàpp ne mu ngi dund fekk dafa dee parce que digganteem ak yàlla dagg na kër gi am poto courant ñu communiqué fiilu courant bi ci kër gi ak poto bi te kër gi amagul disjoncteur amagul compteur est-ce que kër gi dina am courant kon buum gi sax su fi nekkee amul njëriñ mooy fokk alimentation bi am courant bi am kër gi mën a jëriñoo ci courant bi nekk ci lampe bi loolu mooy diggante yàlla ak doomu aadama tey ñu bëri ci ñun dañoo réere loolu góor ñi ak jigéen ñëpp a yem ñu bëri ci ñun loolu lañu réere waaye mbokk yi yàlla yónni na yonent alayhi salaatu wasalaam pour jubal xeet wi pour dundal leen waaye wa bi'satun laha min raqadin tawil yàlla yónni na yonent bi pour mu yee nit ñi ci nelaw gu metti gu yàgg gu ñu nekk yàlla balaa muy envoyé yonent kaw suuf nit ñu réer ñoo fi nekkoon addina bi yépp lëndëm yàlla sax mun misaal ko wa kuntum ala shafa xufratin min an naar fa anqazakum minha yàlla nee na doomu aadama yëpp dañoo jëmoon safara ma yónni yonent bi pour yonent bi gindi leen nit ñi nekk ci njaay àll ci cedd gu métti yàlla ne yonent bi nanu yeesi ci nelaw yu métti yooyu mu nekk milaadan lil umma judd gu bees pour xeet bu bees muy xeetu lislaam judd bu bees pour xeet bu bees malakat dunya xeet woo xam ne bi leen yàlla yónnee tàggat leen moom nañu adduna wa tawaqat fi mashariqiha wa magharibiha xeet woo xam ne bi leen yàlla yónnee lu ndaw li fi yonent bi def sahaaba yi mu yoroon wër nañu adduna ndeysaan pour yóbbu lumière bi seen wër adduna lan la tahmilul liwaul xaq drapeau dëgg la ñu yéen leen yëkkati woon partout dans le monde ñii dugg ci géej gi ñii jaar ci dex gi ñii dox ak seeni tànk ñii wari mbaam ñii wari fas ñii wari giléem lan mu tax ñu tasaaroo mooy kawel kaddu yàlla sahaaba yi dañ doon wax ne ñun rus nañu dee dajeeg yàlla ay nit di dee dem safara ñun rus nañu dee dajeeg yàlla ay nit di lakk ay nit nekk ci ceddo moo tax da ngay dem Inde nga fekk fa sahaaba bu ñu fa suul nga ñëw Égypte fekk fa bàmmeelu sahaaba yi nga dem Pakistan nga dem Irak dem Iran ba ci sous-région bi ay Maroc ay Tunisie ay Mauritanie nga fay fekk ay bàmmeelu taabiin wala taabiat ñi fuñ jóge woon ñu ngi bàyyi ko ca penku ba fu ñuy wax Arabie Saoudia fu ñuy wax makkatal mukarram lan moo leen tasaare ci àdduna mooy tasaare leer bi leen yàlla jox parce que loolu kenn du ko yor tëdd di nelaw tey rek ngay gis ay jullit yu nekk jullit yuy nelaw tey tey rek la nit ñi tal nelaw ak lekk ak naan tey mais démb diine yonent bi musta lekk ba suur musta nelaw ba yandoor ndax yitte gi yàlla teg ci loosam kon ñoom wër nañu ak seen drapeau boobu nga xam ne mooy drapeau dëgg di xeex ci yoonu yàlla kon ñun tey bu ñu toogee dajaloo yal na yàlla fay mbokk bi ñu dajale pour mu fàttali ñu juddu yonent bi kon lan lañ ci war a jànge natakallam fi hadha al milad fa innana nastaqsir al ibra wa naaxuz al qudwa dañ ci war a jànge tiire ci ay leçon waaye jël royukaay bi yonent bi saa sallam fàttaliku moom mooy kan loolu nag buñ koy def lan moo ñu ciy dimbali mooy istirsaadan bil quran al quran mi nga wax ne xam ne moo ñu wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmi al axir wa zakara allaha kasira al quran mi nañu dëgg-dëgg bu ngeen buggee modèle bu ngeen toppandoo yéen jullit ñi ku ngeen roy mu daal di indi yonente bi teg sunu kanam mu ne toppandoo leen kii waaye nga gis ne ñun jullit ñi tey dañoo réer kan la ñuy toppandoo mooy yahudi ak nasaraan yi ci góor ñi ak jigéen ñi amaana sax yenn saa yi benn waaye romb la ñu ne kii de yonent bi lay toppandoo ndeysaan nga gis gaa yi di ree benn waay romb la wàcce tubéy ji ba silib bi feeñ wala bu dee jigéen mu dangal paccal ñu ne kii kan lay roy ñu wax benn turu yahud bu jigéen wala ñu wax benn turu yahud bu góor nga gis gaa yi daal di tàccu ñu fàtte ne yonent bi la yàlla waxoon nañ ko roy hatta sax ci ay melokaan yoo xam ne yonent bi daf ko tere nga gis magi diine yi dañ koy def te yonent bi dafa tere woon ne loolu jikko yi yëfu yahud la wala yëfu nasaraan la wala ci colko wala ci melokaan wala ci wax wala ci jëf yonent bi tere ko ne bu leen def sàngam nga gis tey nit ñi di ko def fàtte aaya bii nga xam ne moom moo nekk suñu kanam mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla dana woon bu ngeen buggee modèle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nii toppandoo leen ko loolu nag ana kan la mu ne liman kaana yarju llaha wal yawmi al axir koo xam ne alaxira xam na ne dina ñëw koo xam ne bëgg na tiyaaba kooku yàlla ak yonentam yàlla dafa ko won yonentam pour mu roy yonent boobu ixwani fillah wal muslim daiman wa abadan musawiqun ila al iqtida jullit ba àddina bi jeex jullit fu mu mun a nekk day am cofeel ci roy yonent alayhi salaatu wasalaam lu tax ndax roy yonent bi moo lay traceel nga topp yoon wi nga xam ne mooy tax nga ragal yàlla yoon wi nga xam ne mooy tax nga nekk mujahid borom bi wax na dëgg ci téeréem bi mu ne ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla nammee mu baax yàlla bugg ko baaxal bëgg nit ñi roy ko moom yonent yàlla dafa am ay modèle yu mu exposé ci kanamam yonent bi li muy baax baax yàlla daf ko woon ay modèle taxawal yonent yi ci kanamam ibrahim muusa isa nuux ak yeneen yonent yi ko jiitu woon yàlla ne ko ñii laa baaxal soo bëggee baax toppal ñii ulaika allazina hada allah gaa yi la baaxal gaa yi la yàlla baaxal fa bi hudahum iqtadi ci seen njub topp ci doomu yonente bi alayhi salatu wasalaam kon ñun suñu buggee baax yàlla bu wanee yonent bi yonent yi ne yonent bi soo buggee baax royal yonent yi ñun ñu ñëw bëgg a baax kon sikk nekku ci ne dañuy roy yonent bi alayhi salatu wasalaam pour ñu baax ndax yonent bi moo toppandoo woon ña baax baax fa tashabbahu in lam takunu mislahu jéem leen nuru nurul ku baax ndax jéem a nuru nurul ku baax day tax nga baax in lam takunu mislahu même bu ngeen baaxul su ngeen jéem a toppandooyee ku baax da ngeen di baax te yonent bi ak sahaaba yi ku leen toppandoo da ngay baax moo tax mu ne jullit fu mu mun a nekk dafa war a xeeñtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour roy ko waaye mu rëdd aw rëdd woo xam ne moo koy yóbbu ci muttaqin ci mu ragal yàlla moo koy yóbbu ci mujahidin waaw moo tax yàlla mu ne yonent bi ulaika allazina hadallah ñii laa baaxal fa bi hudahum iqtadi soo bëggee baax melal ne ñoom وهذا الاستشراف من المسلم إلى هذه النماذج الوسابة إنما هو نوع من الاستمداد العظمة يلا بوخي nañu roy ñooñu pour baax yàlla indil ñu ay modèle yoo xam ne dëgg-dëgg doy na modèle loolu dëgg-dëgg mbokk yi ñun loolu war na noo doy lii nag yàllaay wax yonent bi wa kullan naqussu alayka min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak soo gisee ma lay nettali yonent yi yow yonent bi mooy dama bëgg sa xel dal maa nusabbitu bihi fuaadak dama bëgg sa xel dal wa jaaka fi haadihi alxaq wa mawisa wa zikra lilmuttaqin indil naa la ci lii ma la jox dëgg indi naa la ci waar indi naa la ci lu tax nga fàttaliku indi naa la ci indi naa ci loo xam ne mooy tax jullit yépp ku mu mën a doon nga fàttaliku ci yàlla waxaat yonent bi laqad kaana fi qisasihim ibra soo gisee ma lay nettali yonent yi mooy damaa bëgg nga jële ci waar إذا أردنا أن نلتفت بعض الدروس والعبر من بهار الزخارة في سيرة الإترة في ميلاد الكريم فإن أول ما يتالعنا ما يحتاج إليه كل مسلم داعي وكل مجاهد في حقل الإسلام والدعوة إلى الله أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلك طريق التغيير mbokk yi sunu toogee fii tey di fàttaliku yonent bi juddoom war a tànk ci géej googu war a leerlu ci lumière boobu war a dox ci yoon wu yaatu wii wu leer naññ te lii ñépp a ko soxla fàttaliku juddu yonent ñépp a ko soxla waaye ci amee niinu fàttalikin gi tey dëgg bi boo jur boo tombee dëkk bi baas yi ñépp a ngi tànt waaye maal asaf ndeysaan kenn du wax nit ñi yonent bi dañ fay nekk di yuuxu di way di fettasu ba fajar jot ñépp ñibbi da ngay dajee kenn koo xam ne fanaan na fa nga ni ko yow loo ko jëlee mu ne noonoo man dama lekk rek après daal cere ji jàpp ma nelaw quoi ndeysaan suñuy fàttaliku dëgg dëgg dund yonent xam nga lan lañ njëkk a war a fàttali tomb bu njëkk bi mooy anna rasul sallallahu alayhi wasallam salaka tariq taxyir yonent bi mu ne cëpp ci àdduna li mu njëkk a def mooy jàpp ne damaa war a changer àdduna jàpp ne damaa war a changer àddina bi allahu akbar yonent bi yoonu changement la jaar waaye alkawniya loolu changement boobu nekkul ay kéemtaan boo xam ne dafa toog di ko def ci ay mujiza déedéet nekkul changement boobu yonent bi daf ko song ci ñett ci jamono ci société ci bakkanam ak ci xelam ñeent yi la yonent bi ñëw pour soppi ci doomu aadama yi waaye loolu yonent bi mu ne dafa war a soppi yan moyen la utiliser wastaamala kullul milkiyaat lépp lu mu moom utiliser na ko wa kullul xawaas utiliser na cëram yépp wal imkaanaat lépp lu mu moom wal asaali bépp méthode fi daawati nas ci woo nit ñi waaye yonent ñëwul fanaanee naafila di ñaan ey yàlla yàlla na nga baaxal aadama gay de yàlla nga baaxal oustaz aadama kay de di woor pour yàlla di ñaan déedéet yonent bi dafa ñëw simmeeku fekk aadama kay këram mu bañ fetteerlu lànk yonent bi di suba mu delluwaat yonent bi méthode boobu la utiliser bi mu yegee ne yàllaa ko yónni mu changé àddina bi mu ñëwee dafa simmeeku sol yéreem takku ba dëgër dugg ci nit ñi utiliser nag moment yëpp dem ci marché yi dem ci kaaba ga dugg ci kër yi togg ay añ ay reer ay ndékki di invité nit ñi pour ñuy lekk waaye pour mu jàllale kàddu yàlla waaye xoolal ñun tey suñu kër yi sax mënuñu ko changé mënuñu saay sax suñu njaboot mënuñu changé suñuy soxna am na lenn ci ñun mënuñu yee sax seen jaboot jógal julli fajar te yonent bi saa salaam la ñuy roy te yonent bi yàlla da ko yónni woon pour mu ñëw pour changer addina te wallahi génnul àdduna lu dul samp na drapeau la ilaha illallah muy naaw ci golf bi lépp changé ci changement boobu yonent nekk biir Makka jéem a soppi am ñu ñëw am ñu lànk dëgër këcc lu ne ñu ko ko ciy def mu ne xaaral ma changé dëkk mu dem Taayif ñoo ñu gën a ban mu déparé Taïf jëm Madinatul Munawar mu dem yàlla ubbi foofu mu def fa point de départ pour changer àdduna allahu akbar yëf yi métti yonent bi di xiif di mar di bit di ñàkk a nelaw loolu yëpp def na ko utiliser lépp lépp pour daawati naas pour génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer moo tax ndeysaan Fatima fekk na yonent bi mu ngi sonn fu mu doon sujjóot Abu Jahlin jël mbàqu gëléem teg ko ci kawam mënatul siggi Aboubacar moo daw ñëw puus mbàq gi mu daanu ñu daal di yëkkati yonent bi yóbbu ko këram ak taxaay beeg coono gi Fatima xool ko yërëm ne ko papa doo noppalu mu ne ko noppalu jotagul noppalu jotagul ay doo noppalu coono gi mu ne ko noppalu jotagul jàngeen keroog ca waa Màkka ba ñu ñëwee ne ko boo bëggee ñu def la sang boo bëggee ñu def la buur boo bëggee ñu jox la alal boo bëggee boo bëggee proposition yi bëri ñu wax ko Abu Taalib mu ñëw ne ko say mbokk dañoo ñëwoon pour indi yenn doléance pour ñu ja nga jàmmoo sa digganteeg ñoom nee nañ boo bëggee nga nekk buur léegi ñu fal la boo bëggee nekk sang ñu jox la caabi kaaba gi boo bëggee alal ñu dajale alal jox la nga ëpp leen alal lan la yonent bi tontu aba talib la wadau sams ala yamini wal qamar ala yasari ala an adaa haza al amr bu ngeen jëloon jant teg ko sama loxo ndeyjoor ngeen jël weer sama loxo càmmoñ pour ma teg mbir mi man du ma ko def lu dul yàlla feeñal ko wala yàlla daan ma fii jële waaye yonent bi coono la daj pour nit ñi soppeeku ñun bu ñu bëggee rey yonent bi bu ñu bëggee soppeeku yoon yooyu la ñuy jaar kenn du soppi àdduna ci tëdd di nelaw kenn du soppi àdduna ci ñaan mënuñoo jàpp ne danañ ñaan yàlla di sujjóot ba àdduna bi soppeeku mukk ci àdduna bul yaakaar ne mën nga am doom wala jabar ngay sujjóot di ñaan yàlla pour mu soppeeku mukk loolu du sunanullah fil ard sunan bi mooy ay effort ngay def ba pare boole ci ñaan al juhud coono ndax yonent lool la def sallallahu alayhi wa sallam moom yonent sahira la yaal biddanti na ay guddi maanaam ñàkk naa nelaw ay guddi toog di xoole wa qataa alfayaafi wal qifaar mu dagg gox yi yéeg montagne yi wàcc xur yi wastaxala kullu jamin wa kullu mawsim mu utiliser bépp mbooloo fépp mu xam ne mbooloo fa rek yonte dem na fa pour waari mbooloo moom pour ñu ñëw wuy si ci changement boobu mu war a changer àdduna occasion bu nekk comme tey xoolal tey nu ñu ñuy waxee gàmmu yonent bi utiliser na ko bépp xew-xew bu xew rek yonent da koy utiliser ca jamono yooyu ca ceddo ga lu xew rek yonent xam ne mbooloo fa yonent song na mbooloo moomu pour lan pour am nit ña fa nekk wa kullu xaraaba waaye ak ay jege ñaale sax jege ñaale mbokka mi ndeysaan tey tëdd ba guddi mu ñëw benn kër fëgg kookal la mu ne Muhammad ñu naa bàyyi bàyyi taxam ñoo ubbi bunt bi mu dugg ci biir kër gi toog waxtaan wala wala wala ci mbokk yi deret gi sax yonent bi daf ko utilisé kullu qaraaba wa kullu sila ak bépp jokk mbokk yonent bi def na ko pour changement boobu am kullu mawqif bépp taxawaay yonent bi taxaw na fu ngeen yaakaar ne biir màkk yonent bi tànkam taxaw na fa pour changement am léegi nag ñun su fekkee dañu ne dañuy roy yonent mbokk yi ñun lan la ñu def est-ce que li yonent bi def def nañ ko góor ak jigéen keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee woote Abu Bakrin Saddiq ñëw daal di tàllal loxoom day joor yonent bi tàllal Abu Bakar yonent bi ne ko waxal ashhadu an laa ilaha illallah mu daal di wax Abu Bakar dafa teggi loxoom daal ne yonent waaw mbir mi ma dugg lu ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war li ma war tey moo la war Abu Bakar daal di génn premier jour mu indi Ousmane ibnu Affan deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Mahzoun troisième jour mu indi Arqam ibnu Abi Arqam quatrième jour mu indi Bilal ibnu Rabah fukki fan saa yu yonent bi xëy dina indi benn ponkal dugal ko ci diine da ngeen di jàng ci taarix ñu ne am na fukki nit ñu yonent bi xool ne leen di ngeen dugg aljanna ñu tudd leen ashara al mubastirina bil janna fukk lañ juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci islam ñun bi ñu nekkee ci yoonu yàlla bi ba léegi di woote di wax bi ñu nekkee ci daawa bi ba léegi di daawa bi ñu nekk ay sunnit ba léegi bi ñu nekk ay jullit ba léegi kenn ku nekk ci ñun góor a jigéen ñaata nit ngay indi laaj naa ko képp ku toog ci saal bi ak ku topp bi ngeen nekkee ay sunnit ba léegi ku nekk ci ñun ñaata nit nga indi ci daawa yonent da doon indi sahaaba yi da doon indi xoolal da ngeen di jàng ñu ne tufayli ibnu amr tufayli ibnu amr moom moo indi abu hurayra abu hurayra mooy ki nga xam ne moo ëpp lu mu mokkal ci hadis yonent bi mokkal na 5374 hadis kan moo ko dugal ci islam tufayli ibnu amr bi du appel tufayli ibnu amr moo dugal abu hurayra moo dugal abu hurayra ci diine xoolal abu hurayra bu ñëw jàkkaarloog yonent bi nekk ak yonent bi ba mokkal 5374 hadis rappel la rek day dem léegi mbokk yi kon coono googu yonent bi sonnoon effort yooyu yonent bi defoon loolu moo nu war tey suñu toogee di di fàttaliku guddi yonent alayhi salaatu wasalaam mu naa duñ ko fàttaliku ci leneen dañ koy fàttaliku ci coono yi mu dajoon ngir ngir nit ñi baax coono yi mu dajoon pour yàlla kontaan ci moom pour mission mission bi ko yàlla joxoon mu daal di koy tasaare loolu mooy fàttaliku bi ixwaan yi mboolem pakk-pakk nag boo xalaat mboolem coono mboolem danger booy xalaat ci àdduna tey yonent bi daj na lu ëpp loolu yonent bi daj na ba daj lekk poson ñu posone ko pour mu dee ba mu lekkee ci yàpp bi la ko yàpp bi ne yow yonent bi dañ maa posone loo daj rek loo xalaat rek yonent bi daj na ko kon loolu la ñuy fàttaliku yonent bi alayhi salaatu wasalaam lakinahu sallallahu alayhi wa sallam istaxala al fursa yonent bi utilisé na occasion yi ndeysaan wastafaada min al mawaqif mu dolleeku expérience ci taxawaay yi was was wastismaari zaman jamono ji fir yi ci daan génn ci ay mbir yonent bi utilisé na loolu bépp coono yonent bi amul lu mu dajuloon lépp loo xalaat ci yonent bi def ko ci coono yonent bi def na ko pour diine ji taxaw wax naa leen sànq yi mu wër dëkk yi mu dem gépp loo xalaat rek yonent bi def na ko pour tax liggéey bi taxaw waaye fan la yegg mooy lam doon liggéey daal di am njëriñ xeex na sax yonent bi xeex boo demee ci siira ñu wax la yonent bi ñaata xas wala xeex yonent bi amoon arme te bu nit ñi daan xeex moom nekkul comme xew-xewu tey de nga xam ne kilifa gi moom bu ñuy def dara moom day toog du def tey loolu la yonent bi saa sam danaan jiit gaa yi topp ko ndeysaan moo tax kilifa yi war nañ jàngaat dund yonent yonent moom bu jiitee mbir moo jiitu tey ñun dañuy toog ci kër yi di di digle damay toog sama kër jox sama taaliba yi ndigal ne leen dem leen ca toog maa ngi ñëw bu ñu demee yendoo liggéey depuis fajar ba ngoon bu ma ñëwee ne set na tàllal leen ma ñaanal leen yonent bi moom musul def loolu dem leen maa ngi ñëw moom moo daal jiitu moo tax ngeen gis uhud ñu dóor ko ba damm ba ñëw xuri ay oomam casque bi mu soloon daal di koy tànc ba bopp bi mënatul génn benn saxaaba moo ñëw ndeysaan bi mu gisee casque bi tànc yonent bi côté yi di di rongalaat deret mu yërëm yonent bi ndeysaan ñu ne nañ uti luñ ko dindee lañ uti luñ ko dindee mu xam ne buñ indee weñ wala buñ jëlee jaas yi bu ko dindi dañuy gaañ yonent bi mu leen xaar leen moom mu ñëw mu ñëw sëgg ndeysaan daal di matt casque bi ak gémmiñam daal di xëcc benn bëñ deñ mu mattaat xëcc beneen bëñ deñ ndeysaan xam ngeen saxaaba bu lu ko yàlla fayee ñaari bëñ yooyu deñ nekk sàkkara yàlla boo xam ne bu ko signé rek ñëpp kontaan wala loolu la ko yàlla fayee mais xoolal yonent boobu loolu mu deñ kon mbokk yi tomb bi njëkk ci waxtaan wi mooy li ñuy royee yonent bi bu fekkee dañ ko bëgg a royee rek dëgg dëgg dëgg dëgg yonent bi dafa ñëwoon pour changer àddina yonent dafa ñëwoon pour soppi dëkk bi ñun est-ce que soppi nañu est-ce que soppi nañ suñu njaboot suñu bopp ba pare est-ce que soppi nañ suñu njaboot est-ce que soppi nañ suñuy soxna est-ce que yéen jigéen ñi soppeeku ngeen loolu mooy wax ji daan damaa bëgg yonent bu ñu nee yonent nga ni sallallahu alayhi wa sallam loxo ci kaw bàkkaar ci suuf est-ce que yow mii changé nga mel nga ni yonent bi bëgg loolu la ñuy bëggee yonent ñaareel ci tomb bi arafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu xamee taxyir boobu ba pare li mu njëkk a def encore deuxième bi mooy mu daal di former ay góor ndeysaan former ay góor xam nga ñun xam nañ ne dañoo war a am changement ñun ñëpp xam nañ ko waaye préparé wuñu changement boobu ñan ñoo koy def yonent bi mu xamee ne dafa bëgg a soppi àddina bi dafa ut ay góor ñooñu ñu naan rijaal yàlla sax moo ko waxal boppam ci alquran rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi ay góor ñoo xam ne yonent bi soppi na leen ba mu leer ko ne ñii soppeeku nañ mu ne acca dugg leen ci àddina bi soppi nit ñi yonent bi bi mu leen di soppi li mu jëkk a def muy dindi àdduna ci ñoom amatuñu bëgg-bëggu àdduna koo gis bëgg-bëggu àllaaxira moo nekk ci kanam suñu waxee jaamu yàlla loolu lay njëkkante suñ nee julli kenn rawu ko suñ nee koor kenn du ko raw buñ nee sarax kenn du ko raw buñ nee naafila guddi kenn du ko raw buñ nee jàng alxuraan waa ji kàngam la ci kenn du ko raw ah bi yonent bi xamee ne gars yi changé nañ fu ñu dem kenn mënatu leen dara suñ leen doon gaaral àdduna ak lu nekk ci biir dootuñu changé yonent bi tasaare leen ci àddina bi jëlal Abdullahi ibnu Uzafa kenn la ci yonent bi yar ne ko demal nga changé ji àddina mu dem yàlla natt ko ñu jàpp ko noonu jàpp ko romain yi jàpp ko bi ñu ko jàppee lan la président romain yi wax nañu fexe waa ji ñu murtatloo ko bu ñu ko rey nañ ko bàyyiloo yonent bi génne ko ci lislaam ndax yonent bi kat ay ay commando la formé ay soldat allahu akbar suñ amee kenn rek ci àndandoo yonent bi dina fuñ xeex dinañ am victoire parce que gars yi dañoo ñemee ñu daal di jël Abdullah ibn Quzafa fi ñu ko tëjoon ci kaso bi ñu daal di koy génne buur bi ne ko dama la bëgg a may sama doom bu jigéen su ma la mayee sama doom bu jigéen ma xaaj dëkk bi gis nga dëkk bi ni mu toll ma xaaj ko ñaar nga dem jiite fee ma jiite fii loolu tey ku ko Macky Sall waxoon fii kaay ma may la sama doom bu jigéen ma def la premier ministre neex na de ah neex na de ah du ma ne doo bañ de waaye day bis boo bañee say mbokk moom dootoo dugg ci kër gi Macky génn tele naa ne damay recevoir diw ñu wax ko ci journaux yi diw dañ koy recevoir nga dem ñëwaat ñu ne lan la la proposé mu de dafa ne naa ñëw may ma doom bu jigéen def ma premier ministre ma bàyyi sama diine ñu ne loo ko wax nga ne ah man kay loolu ja dañ nag dañ naan la ci biti ci biti yow dootoo tekki loolu lañ lay wax Abdullah ibn Quzafa xoolal loolu buur bi wax mu ne ko maa ngi lay giñal ci màggaayu borom asamaan ak suuf waxuma la nga jox ma sa doom bu jigéen waaye boo ma joxoon addina bi yëpp mënumaa bàyyi islam mënumaa bàyyi muhammad mu ne tëj leen ko ci kaso bi ñu tëj ko gars yi ñoo ne nañ ko rey mu ne déedéet xalaatal leen ma lu ñuy def ba mu bàyyi muhammad gars yi ne nañ ko boole benn jigéen mu njaaloo jullit ñi moom ku njaaloo rek perte sa islam dégg nga ñooñu loolu lañ wax te duñ ay jullit de ku njaaloo perte sa islam li ñuy def ñu ne seet leen xale bu jigéen bi gën a taaru ci dëkk ngeen boole ko ak moom ñu dem seet ba gis xale bi ñu daal koy futti yaramu neen fi ñu ko tëj kaso bi ñu bumax ko ci biir abdullah nee na bi ma ko séenee muy ñëw ma jàpp ci asmaullahi alxusna di bàkk yàlla di ko tagg ndaw si ñëw yëngal yëngal puus xëcc fu nekk mu laal ko ci waa ji waa ji ne këcc mu daal di yuuxu moom ndaw si ne génne leen ma kii ab ëkk la du nit ëkk ngeen ma dugal ak ëkk xam ngeen ëkk xam nga ëkk xam nga ëkk mooy Dakar la xam nga ëkk ëkk mooy garab guñ dagg ci kaw dagg ko ci suuf ñu bàyyi bànqaas noonu loolu dootul saxati loolu mooy ëkk ndaw see yuuxu ne ci ak ëkk ngeen ma dugal dugalu leen ma ci nit génne leen ma ñu daal di génne ndaw si ñu ne buur bi léegi lu ñuy def mu ne bu leen ko rey ba tey de tiitale leen ma ko rek ñu deel ñaari cin yu ëpp suñu cinu ngénte yi ñu tàngal leen ndox ba mu tàng jër ndox bu tàngee fan la ñu dëgg rek yéen ñi jàng tubaab cent ah jërëjëf ñu tàngal ko ba mu nekk deux cent ñu génne ko moom abdallah ibnu xuzaafa ci biir kaso bi ak benn jullit ñu génne leen ñuy ñaar ñu daal di jékki-jékki rek jël benn jullit rek dugal ko ci benn cin bi rek jullit boobu daal di siddeeku yàpp yi daal di wàcc yax yi jóg kaw noonu lañ ko reyee ñu siddi ko dañ ko cee dugal rek yàpp bi yëpp wàcc yax yi daal di génn kaw ñu xool abdallah ne ko deuxième cin bi yow lañ ciy dugal de rek mu jooy nguur bi ne ko voilà yow yaa ngi nii wax naa la lu nekk dig naa la lu nekk nga bañ tey maa ngi nii dama lay rey ngay jooy looy jooy mu ne ko jooyuma ngir ragal déedéet mu ne looy jooy kon mu ne waa jii def maa jiitu aljanna loolu lay jooy kii def maa jiitu aljanna xamoon naa nag dina ma jiitu xamoon naa ko ñu ne ko noo ko xamee mu ne ndax bi ngeen ñu tëjee su ma jullee ñaar rakk mu julli ñeent su ma jullee ñeent mu julli juróom-ñett su ma naafila genn wàllu guddi gi mu naafila lépp moom su ma waree benn fan mu woor juróomi fan xamoon naa ni ma rawee ci jaamu yàlla xamoon naa dina ma jiitu aljanna buru ne libéré leen ko mu dem kii du nit kaay fóon sama tànk kaay fóon sama tànk bu fóonee sama tànk ma baal la mu ne ko dafa am charte mu ne ko luy charte mooy nga baal ma baal jullit yi nga jàpp yépp ma fóon sa tànk mu ne ñëwal mu daal di ñëw daal di sujjóot ci tànk yi daal ne yàlla laa sujjóotal yéene ko buur bi daal di koy bàyyi moom ak jullit yëpp mu daal leen di yóbbu yonent bi alayhi salaatu xoolal kooku nu mu ne keng parce que yonent bi moo ko yar yonent nee naa leen bu mu bëggee changer adduna bi dafa defar ay nit daf leen defar cent vingt quatre mille personnes ñoo ko wóoroon góor ak jigéen mu defar leen bañ ne kekk envoyé leen ci adduna bi xoolal amr bi muy demee ci rustum xeex la woon ñu convoqué jullit yi ñu daal di envoyé amr ñu ne ko demal yow yaay yow yaay yow yaa nekk yow yaa ñuy waxtaanal rustum nan la ñuy def dañuy tuub duñu xeex wala demal daal loo signante ak ñoom rek boo ñëwee nga wax ñu ndeke wor la woon ndeke naxaate la woon pour tiital jullit ñi balaa amr di ñëw ñoom persi mboolem arme lu ñu am ci kaw suuf ñu daal di koy génne dañoo génne keroog armes yi ba génne ay ñay xam ngeen nit ñi xamuñu xeex war ñay loolu moom dëgg-dëgg amaguñ ko ñu garde buur bi ba weñ ñemewu ko tag ñe weñ yi naaw ñemewu ñoo tag ci kaw pour tiital jullit ci am na bi mu ñëwee ñi ne mbaam la war ñi ne fas ñi ne gëléem fekk ñu lal tapis yoo xam ne mu daal ah tapis rouge mu jël mbaam mi jaarale ko ci kaw tapis bi gars yi ne ko yow yow looy def ni mu ne yéen a ma woo su ngeen bëggul ma ñibbi ñu ne waaw continuer mu war mbaam mi ba ci kanamu président de la république wàcc mbaam mi seize bi ñu ko tegaloo mu daal toog ci moket bi ci tapis bi ñu ne yow looy def nii mu ne fii laay toog bu ngeen bëggul ma ñibbi ñu ne waaw d'accord toogal rustum xool ko daal di jaaxle waaw lan moo taxoon ñu lal ay tapis lan moo taxoon ñu def saisi ay or lu tax ñu génne arme yi xanaa adduna moo tax pour bu fekkee ne dañoo bëgg adduna bu ñëwee mu fekk buur bi toog ci or mbax ne mi ñu ko solal nekk or jaaseem nekk ci wetam mbar mi nekk or jaasi ji nekk or xanaa kon kooku bu gisee loolu dana ne ñii dëgg-dëgg am nañu doole waaye bu gisee arme bi ba gis ñay yi dinañ ne ñii kat dund nañ seen adduna baax na waaye gis nga jullit yi yonent bi defaroon adduna yitteelu leen loolu waa ji di gis ci liggs yëpp loolu am doon gis ci liggs doon gis ci doole doon gis ci ay or ak ay arme ci suuf si la toog mu xam ne kon kii adduna jaaxalu ko bëgg adduna indiw ko fi ñëw di négocier benn pacte boo xam ne ay fen moo ci nekk indiw ko fi kii dëgg moo ko fi indi est-ce que ci dëgg lañ ko yar mbokk yi léegi rustum ne ko waa man de laaj laay laaj ay laaj laa am mu ne ko la sa laaj bu njëkk lan la mu ne ko lan moo tax ngeen tasaaroo ci àdduna bi tax ngeen bàyyi seen dëkk di wër ci àddina bi di xeex ak nit ñi mu ne ko ixraaju naas min azulumaati ila nuur dara taxul ñu tasaaroo rek génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer wa min ibadati al ibad ila ibadati rabbi al ibad tasaaroo nañ ci àdduna pour libérer jaamu yàlla yi nit ñi dafa am buum yu ñu leen yeew takk leen ci bopp lal yi foog ñu dagg buum yooyu ndax nit ñi dem jaamu ji yàlla mën a julli ji fajar ay mbàjj ñoo tere julli ji nit ñi ñun mbàjj yooyu nit ñi sàngoo foog ñu muri mbàjj yooyu pour nit ñi mën a dem jaamu ji yàlla mu ne ko ak lan mu ne ko dañoo sentir ne nit ñi ci àdduna bu xat lañ yaatu lañ nekk àdduna bu xat lañ nekk pour ñu yóbbu leen ci àllaaxira gu yaatu gële ci aljanna ju féex jële foofu lañ bëgg a yóbbu nit ñi rustum di laaj amari di tontu rustum di laaj amari di tontu ba ci yàgg rustum ne ko waaw waaye yéen léegi bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag ndeysaan ah bilaay ay góor dem nañ bilaay ay jàmbaar dem nañ mu sëgg ba ci yàgg bi muy ñëw mbar mi fi mu dencoon jaasi ji mbar mi weñ la jaasi jaa ngi ci nag këcc ci tëju mu daal di jàpp jaasi ji ak loxo ndeyjoor bi daal di koy këcc mu daal di xoos mbar mi ne karaas ci kaw ñi tuub ñëpp di dégg mu ne ko wallahi bu ñu leen woowee ngeen bañ kii mooy nekk suñu digganteeg yi xoolal waa jooju ci kanamu buur bu ñu garde ci dëkku jàmbur nga nekk étranger ñu yónni la ngay menacer population boobu ci ay armes waaye dëgg la ko doon wax parce que loolu la gëm billahi suñ leen woowee ngeen bañ jaasi mooy nekk suñu digganteeg yéen da woo ne yonent bi dafa defar ay góor doog a changé adduna bi bu ñu buggee defar adduna foog ñu changé nit ñi foog ñu changé xale yi góor yi ngeen di gis ñuy takk seen tubéy ci seen xotti taat ngeen baal ma box bi jigéen ñii ngeen gis solatuñu yére di génne seen i awra seen i ween ak seen i kenn xamul foog ñu soppi leen bu ñu leen soppiwul duñ dem fen dañ nax suñu bopp yonent bi ñooñu la njëkk a changé ñoo fekk ku am téeméeri jabar yonent bi ne ko libéral ñëpp ba mu des ñeent mu le mu tekki ñëw fekk jigéen joo xam ne day njaaloo guddeeg bëccëg mu ne ko sëy ñëw fekk xale bu góor boo xam ne lu ko neex la nekk mu ne ko yàlla rek ñoo ñëpp nangu ndeysaan ñëw yonent bi daf leen soppi xoolal abu zarnil gafaari agresseur la woon yonent bi def ko mu nekk rubul islam agresseur jàngeen siira tariqul muhanayni yonent bi di jaar ci yoon di gàddaay ñu tëll benn yoon rek gars yi ne ko fii kat ay ñaar ñuy toroxalaate ñoo fi nekk mu ne ilayhima ursiltu ci ñaar ñooñu la ma yàlla yónni ci ñaar ñooñu la ma yàlla yónni mu ne tëll rek seen gars yi ak seen i jaasi rek mu yuuxu leen yéen ñaar ñooñu lu leen tee ragal yàlla gaa yi ne ah yàlla baat bi mosuñu ko dégg ñu dugalaat seen i jaas jege yonent bi moom ñoom moom ñoom ba bi muy dugg Medina ñaari jullit la yóbbaale mais haka ça yonent bi dafa changé changé addina changé ay góor ñun ñun ñun ñun nañ xool suñu bopp mbokk yi keroog rustum bi ko am ru waxee la rustum dafa tiit daan ne ko waa demal nga ñibbi ñu xool mu ne waa yow waa ji bi mu jógee bala muy yëg ci kaw war waayam mu ne ko taxawal taxawal des na benn laaj mu ne ko bismillah mu ne ko yow yaay amiru gaa yi xanaa mu ne ko yéen boo gisoon xaay ibnu walid xaw ma nooy nooy nooy def mu ne ko man kenn laa ci ñoom waaye lu ma d'accord fii rek su ma demee bu ma leen waxee ñu noom loolu mooy yonent bi dafa su góor ñooñu bi mu leen yaree ba pare daf leen collé daf leen suuti kenn ku nekk ci ñoom loo dem defi engagé na ñëpp kenn du ne lu tax nga def ko affaire bi yow la engagé ah ñun suñu yoon nekku ci yow yaa fa dem yaa jël say res déedéet yonent bi yarul ñu mel noonu daf leen yar yar goo xam ne kenn ku nekk ba nga demee loo wax jullit ñëpp a ko wax soo bàyyee jullit ñëpp a bàyyi xoolal Ousmane Ibn Affan yonent yónni na ko ne ko demal nga négocier ma màkk ndax ma ñëw jaamu yàlla aj xoolal yonent dundam yëpp ñaata yoon laaj kenn yoon yonent yëpp yonent dundam yëpp ñaar fukki at ak ñett yi mu def ci islam yonent benn yoon laaj waaye nekkul woon fi pour ñu def àllaaji Muhammad ñun dañuy aji pour ñu ne ñu àllaaji ku ñëw sax ci jàkka ji ku ñu la àllaaji àllaaji Adama nga ni fii Adama rek. mais pourtant ki yëg na ne dem naa màkk de mais bu lii Adama la may wax bu dee jigéen ñi bokk ci association ajaratu yi def ko ñoo ne ko ñoo moo rek moom suñu diine quoi suñu diine yëpp ay ngissal la ay fola yonent bi dafa aj bos aj ngeen wax ko alaaji aboubacar ne ko wax nañu ko alaaji kenn dégg ñu ne alaaji aboubacar alaaji omar alaaji ousmane non ñooñu loolu taxul woon di jóg ñooñu dañu ñëwoon pour changer àdduna pour def jullit ñi ay dëgg dëgg dëgg dëgg jullit def jullit ñi ay jaam yoo xam ne dañoo jege yàlla tabaraka wa taala wala hanzala séet takk jabar séet di séet ak moom fajar mu dégg ñu ne yaalal jihaad mu daal di jéggi séet bi xanaa dafa waroon sangu ji mu daw jël jaaseem dem ñu rey ko ñu gis malaaka yi jógee kaw asamaan di ko sang saxaaba yi daal di waaru ne yonent yow yaa ñu waxoon ku dee ci jihaad kenn du ko sang hanzala di gaa yaa ngi koy sang mu ne dafa fanaanoo janaaba moo tax sanguwul woon du muy génn xoolal yonent ñooñu la defal li mu njëkk a def mooy génn ci ñoom àdduna xam nga nga bàyyi sa jabar moo tax keroog ca gàddaay hijra ba mu leen ne jóg leen ñu gàddaay ñu jógee Màkka dem Médine gars yi lan la ñu bàyyi dañu lim ñett wala ñeent ci gars yi liñ bàyyi kër kër lañu njëkk a bàyyi yéen waa Sénégal xam ngeen kër ku amul kër fii luwe ci jàmm ngay nekk wala ci musiba ci musiba ku luwe Sénégal yaa ngi ci musiba surtout nag ku luwe kër kër appartement lëmm ngay fay xam nga ne chaque jour yaa ngi yaa ngi yaa ngi matt sa baaraam yaa ngi wiccax xoolal ñooñu ay kër lañ bàyyi ñooñu lan lañ bàyyi ay jabar lan lañ bàyyi ay doom lan lañ bàyyi ay tool fala ku mel ne Aboubacar nga xam ne kenn wàllu économique màkk yëpp ci loxoom la nekkoon waaye bu ko yonent bi ne nan gàddaay dafa ne yonent bi dem na nañ dem lépp bàyyi naa ko sama ginnaaw ba muy dem dara topp ko lu gëlëm gi mu war ak gëleemu yonent bi leneen toppul Aboubacar loolu moo tax yonent bi ba mu leen defaree ba ñu baax xur mu wax leen bàyyi leen dara ñu bàyyi c'est facile moo tax aaye bi ñu wàccee yàlla naan leen ay bàyyi leen sàngara dañoo bàyyi bàyyi leen dañoo bàyyi parce que dañ leen a defar mbokk yi yonent bi ba toog fukki at ak ñett di defar saxaaba yi biir Médine biir Màkk ba ñu ne kenn ba baax moo tax waa muhaajirun amul naafiq amul naafiq ci waa màkk yëpp kenn lañ def góor ñooñu yonent bi defaroon sallallahu alayhi wa sallam ci lan la leen defar daf leen yar dafa leen tarbiya defar seen jikko defar seen ruu defar seen jikko suñu bëggee defar ay nit comme yonent bi ni mu defare woon ñooñu dañuy defar nit ñi seen ruu ba ruu yi sell su ruu yi sellee rek jikko yu baax waaye bu ñu toogee di defar yaram yi xam ngeen yaram li koy dundal mooy lekk naan sëy sangu diwu peñewu loolu pour yaram la du egg mukk ci ruu te ñun tey loolu la ñuy defar mooy erreur yu graaw yi ñuy def mooy dañuy defar yaram yi bàyyi ruu yi alquran moo wàcc na yonent bi yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattalil qur'ana tartilan lu tax inna sa nulqi alayka qawlan saqil pour nga defar ruuy lu mu njëkk mooy xañ leen nelaw guddi su guddee walee nga tëdd di nelaw ñu ne la jógal nga jaamu yàlla nga jóg dugg ci ndox mu sedd mi lal sa sijaada sa ruq yàgg sa borom da ngay dégg saxaaba yi ñu ne yonente alayhi salaatu wasalaam daana julli ñaari rakka fajar jot Abdullah ibn Omar nee na benn bis damaa julli gee ba pare ci jàkka ji ma sëlmal ma ne xaaral ma ñëw ma ñëw toog ci buntu jàkka ji di xaar yonent bi mu ne may xaar rek mu dugg néegam xam nga yonent bi jàkkaam ak këram nu mu meloon mu ngi mel ne saal bi ak buntu bi noonu la kër yonent bi meloon ak jàkka ji moo tax da ngay dégg mu ne maa bay na bayti wa min bari rawdatun min riyaadil janna diggante sama dëkk bayti sama fi ma dëkk ak fi may jiitee jardin la ci jardin aljanna yi boo demee Médine foog nga gis gars yi di njëkkante bu ñu bériser yi rek nit ñi taw di njëkkante rawda da ngay dégg ndeysaan ku ñëw ne la tey rawda balaa jullee sama wax gi yëpp ndax fajar laa fa dem toog fa bañ julli liggéey ma doog a ñibbis mu jaral waa ji bañ a añ bañ a ndékki bañ a reer ndax bu ñibbis pour julli fa lan moo tax jege ñaay boobu mooy nii la meloon dafa jege noonu la kër yonent bi meloon ak jàkka ci Ablaye ibn Omar nee na yonent bi dugg néegam mu ne ma ñëw dugg ma fekk mu kàbbar ma kàbbar ma ne xam naa day naa fi la ñaari rakk ginnaaw gi après moo ko sama soxla ma ñibbi nee na yonent bi daal di jàng Fatiha daal di jël Baqara mu ne sama xel xam naa boo amee fukki aaya rek incha allah day rukkoo nee na yonent bi jàng Baqara ba mu jeex mu ni mu ne may xalaat mu rukkoo mu jël Aala Imran Aala Imran daal di jeex yonent bi daal di rukkoo mu ne rukkoom nag ñu ne ko ah mu ne rukkoo na lu toll ni ñaari saar yu mu jàng mu ne ah ma rukkoo ànd ak moom mu ne mu sigi taxaw lu toll noonu ñaari saar yi mu jàng mu taxaw lu toll noonu mu ne mu sujjóot sujjóot lu toll noonu mu ne mu siggi jël beneen rakka bi mu jël nisaa bi nisaa jeexee mu jël maayida nee na keroog lu bon laa naroon ñu ne ko Abdoulaye ibn Omar loo naroon mu ne dama naroon toog parce que dama sonn dama naroon toog falal allahu akbar ba jàpp ne ne julli mën a julli taxaw toog lu bon la mu ne lu bon laa naroon ñu ne ko lan mu ne damaa naroon toog nee na bi yonent bi di sëlmal mu dégg Bilaal di noddu assalaatu xayru min an nawm ñaari rakk fajar jot ñun ku gën a baax ci ñun 5 heures la yeew ku gën a baax ki laa wax de ci ñun 5 heures la yeew allahu akbar quatre rakka lay def te da koy profité pour ku pucc kuc pucc kuc kuc asalaamaaleykum pour kuc pour kuc pour kuc asalaamaaleykum ba moo tax ruux yi duñ defaru ruux dañ koy defar ci tarbiya yar sa bakkan loolu moo tax bi seen bakkan yi yaroo moo tax daawoo gis marché bu tëj daawoo gis calpe bu réer daawoo gis ku toroxal jigéen daawoo gis ku toroxal jëkkëram daawoo gis ku toroxal doomam maanaam dëkk bi ñëpp ragal yàlla même commerçant yi jàngeen histoire Omar ibnu Xattaab daan bàyyi ba guddi muy tourné di wër Madine mu dégg benn commerçant naan soo mi de jar na sëy buñ ko njaroon ne doom ji yokk ko benn paan la mu ne waaw mu ne def ci bi ndox pour mu nekk ñaari paan allahu akbar doom ji ne ko yooy yaay bu la Omar jàppee Omar nekk fi gis in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana allahu akbar bu ñu bu la Omar gisul yàlla mi sàkk Omar yow yaay mu ngi lay gis gis ngeen soow moom keroog dafa baax contrôle de prix ñëwul gendarme ñëwul police ñëwul douane ñëwul njaay mi ne feng baax ñun tey ut nañ ñooñu ñëpp te dëkk bi baaxul wala am nañ police dëkk bi baax na bal ñooñu ñoo gën a dëng ñëpp fekk leen circulation nga xam ne ñuy juguñ oto bu gaaree 200 bi may ñëw léegi chauffeur bi may indi lu ma wax su ma xëyee suba dinaa neexle 4000 2000 suba 2000 ngoon ma ne réew mi du baax yonent loolu la dindi ci société bi yonent yar nit ñi ba nit dem njaaloo xam ne dañ koy rey mu ñëw ne yonent damaa njaaloo kenn fekkiwul ku jigéen ñu ne yonent damaa ëmb de ñu gis ne damaa ëmb du la ëmbal damaa ëmb yow na yonent dafa baax xoolal ndaw si bi mu ne koy damaa ëmb wax ko kañ la ci gars yi kan la ci sama saxaaba yi wax ko laaj bi de da ko ne demal soo demee ba nga am doom nga ñëw pour mu ubbil ko bunt bu demee tuub mën na woor mën na jàng alquran mën na naafila bu demee mu tuub demal boo amee doom nga ñëw ubbil na ko bunt bi xoolal ku ëmb nekk sa première weer gisoo baax nga dem ñaata weer ngay toog kooku boo amee doom mën ngaa toog fàtte ndaw si dafa am doom tey ci guddi mu gàddu doom ji ñëw ne yonent xàmme nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko may ndaw si ëmboon nga ni ma demal ba nga am doom mi ngi nii am naa doom démb ci guddi doom jaa ngi yéen dama nga nàmpal ko ba mu fer demal demal demal dama nga nàmpal ko ba mu fer wala yoon tamit ni koy ubbi lay bunt ndeysaan mu dem nàmpal doom ji ba mu fer mu gàddu doom ji ñu ne yoon bi xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko may ndaw si njaaloo woon ma ñëw nga ni ma demal ba ma am doom ma ñëwaan nga ni ma demal nga nàmpal ko ba mu fer yonent gis nga nag kii fer na mi ngi nii jox naa ko mburu gis nga mi ngi lekkal boppam defal yàlla li mu wax ci man bëgguma day dajeeg yàlla di yóbbaale bakkaar da leen yar loolu yar la defar la da leen defar moo tax kenn ci ñoom bëggul dajeeg yàlla yóbbaale bakkaar xam nga yonent lu mu wax ndaw si mu ne sahaaba yi aqimu habdallah alayha taxawal leen li yàlla wax ñu jël ay sër sang ko ko muur ko balaa awraam yi di wuññiiru yonent bi ne def leen li yàlla wax ci moom gaa yi jël xeer yi parce que ku njaaloo te sëy sangewu noonu lañ lay def dañ lay rajj moom ñu jël xeer yi di ko dóor jël xeer yi di ko dóor ba ci yàgg rek Xaalid ibnul Walid daal di jóg daal di jël benn brique ne ko tël ci bopp bi bopp bi daal di tasaaroo yonent bi ne Xaalid ma laqad taaba tawbatan law qusimat ahlal madina la wasiat daw si tuub na tuub boo xam ne waa madina bu ñu naanoon sàngara ñoom ñëpp bu ñu njaala woon ñoom ñëpp suñ leen séddalee tuub bi ñoom ñëpp dana leen mat bañ dugg àjjana wala tuub boobu law qusimat ahlal madina la wasiathum tuub bi buñ ko séddale woon waa madina ñëpp dugg àjjana mais loolu yar moo ko def mbokk yi kon buñ buggee changer buñ buggee roy yonent bi nekk ci di fàttali ko guddi yonent bi alayhi salaatu salaam mooy wax naa ñaari tomb bu njëkk bi mooy yonent bi yàlla da ko yónni pour changement ñaareel bi mooy changement boobu daf ko préparel ay góor naam innahu tarbiyatu rijal hiya asaasu quwatihim wa sirratu azamatihim yar boobu yonent yar góor ñooñu nga xam ne daf leen a yar ba yàlla subhanahu wa taala di leen taggal boppam laqad radiyallahu anil muminin muhammadun rasulullah wallazina amanu maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguna fadlan yàlla daf ko yàlla ci boppam bi yonent paree ci sahaaba yi yàlla moo leen doon tagg moo tax si si ay di fen ndax 124 000 personnes suñ nee ñaari ñoo ci baax ça veut dire que kon ki leen doon yar moo mënu soo amee kër nga am fukki doom ñu ne kenn ci baax yow yaa mënul yar xam nga lan la isla lan la ngay jàngal fukki nit ci classe examen jot nga am fukki élève ci classe examen jot set ñi jàll dañ naan maître bi jàngale na ah cinq yi jàll ñu ne waaw jàngale na mais mais mais nga am dix personnes kenn jàll dañ naan maître bi moo xamul dara bu dee kenn jàllul nag kenn du wax maître bi xamul dara dañ naan maître bi moo warul jàngale kon chia yi naka lañ mun a waxee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am cent vingt quatre mille sahaaba ñu ne ñaar ñoo ci baax ñett ci baax te yàlla ne laqad radiyallahu anil muminin man yàlla gërëm naa ñii yàlla moo ko wax moo leen taggal boppam ne gërëm naa leen ndax yàlla dina gërëm ku baaxul moo tax kon dañuy fen mbokk yi ñetteel bi ci tomb yooyu ñuy wax dañu war a jëlee ci roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñetteelu tomb bi mooy nit ñooñu buñ leen amee ba pare ba yar leen yar goo xam ne dootuñu dengi dengi kon ñu jàngal leen alquran moo wax ne huwa allazi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim jàngale ak yar mooy ànd ndax nit buñ ko jàngalee yaruñu ko day nekk bandi gis nga tubaab moo tax ñi tubaab yi jàngal yëpp ay trian lañ ngeen sones dañuy lekk alalu nit ñi trian lañ es Senelec Sonatel tubaab yi day ñëw day lekk sa alal te doo xam doo ci mun dara facture la lay jox facture bi boo ñëwee mu la koy calculer munoo fexe ba comprendre facture bi ay méga TAV pararara trrr ba nga fay liñ la war a waxal force nga koy fay mooy jàngale bu amul diine borom bandi lay nekk saay-saay lu mu bëgg a def def ko te kenn du ko mun a weddi mooy loolu ngeen di gis wala banque xool leen yeneen yëpp ñi ngeen di gis fii ci dëkk bi tubaab yi indil ñu ko yëpp sunu xaalis lay lekk te munoo fexe ba rëcc ci mooy mbirum banditisme nit buñ ko jàngalee yaruñu ko bandi lay nekk buñ ko yaree jàngaluñ ko mbaam lay nekk mbaam luñ jël teg ko ci kawam moo ne ñaar yi benn baaxu ci kenn du yar nit kese jàngaluñ kenn du ko jàngal kese duñ ko yar ñaar yëpp ñooy ànd ak tarbiya wa taalim suñ ko jàngalee kañ lañ ko war a jàngal rafiq tiflaka saban wa allimu saban wa laibu saban 7 fois 3 21 ans yonent bi nee na xale bi jàngal ko bu mu amee 7 ans formé ko bu mu amee 7 ans yar ko bu mu amee 7 ans mu nekk ñaata su ko defee bu génnee mën na nekk commandant wala yonent bi doon jël ay Usama ibnu Zayd ay xale yu am 16 ans di leen yabal ñuy dem jiite ngeen c'est parce que dañ leen a defar avant ba ñu amee ay xale yu ndaw lañ leen defar jàngal leen moo tax bi ñu amee ay 21 ans fekk passé nañ fi nit ñi passé lépp lu ñu war a xam-xam nañ ah léegi nag ñun bu fekkee ne dañuy ne dañuy roy yonent fekk yoon yi yonent jaar yonent bi préparé bi mu préparé terrain bi yooyu dañ cee sëgg suñu bët day nax suñu bopp mbokk yi ci tënk bu gaaw ñeenteelu tomb bi kii roy juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam préparer àddina pour préparer sa kër pour roy yonent bi ñeenteelu tomb bi mooy azhara lana siratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna taarixu al uzama ibdaaun wa nubu wa jihad wa kifa wa bazl wa ata ñeenteelu tomb mooy liñ jàng ci histoire àdduna ponkal boo jël ci àdduna ponkal boo jël da nga gis dafa takku dafa jàmbaare dafa xeex dafa jihaat dafa xare pour egg fi mu egg maanaam àdduna ak àllaaxiraayam kenn du ko am ci tëdd di nelaw àdduna kenn du ko am sax tëdd nga nga xëy tëdd di nelaw ba ñu may la kër nga tëdd di nelaw ba ñu takkal la jabar nga tëdd di nelaw ñu la koy yoral loolu fan la ah man de fu ma am wax leen ma ko ma ne uti fa soxna amu fen dañoo takku mbooleem mbooleem koo jàng ci dundam ci mag ci borom xam-xam ku mu mun doon ci yonent yi da ngay gis ne dañoo takku woon kon bu ñuy roy yonent yonent dafa takku woon loolu la ñuy jàngal loolu la ñuy jëlee ci dundam moom yonent ne dundam yëpp jihaad waaye kifaax bazl ata wa hidaaya wa irshaad wa qiyaada wa xikam yonent dundam yëpp njub la yonent dundam yëpp xam-xam kese la xoolal li mu dund loolu la jàngale xoolal téere Buxaari ñaata hadis la xoolal téere muslim xoolal téere abu daawud tirmisi nisaay ibnu maaja yoo leen wax kutubu sitta ñu ne la mooy juróom benn téere yi gën a wér ci hadis téere hadis yi moom kenn xamul nu mu toll waaye lañ lay wax ne yi ci gën a wér mooy juróom benn yi loolu yëpp kan moo ko wax waxu kan lay firi hadis yooyu waxu kan lay jàngale waxu yonent ba pare téere yàlla bi lay firi maa téere yàlla la mokkal dund ko di ko firi moom mooy jur hadis yooyu te terewul fu ñu ko soxlaa gis ko bu ñuy xeex mu nekk ci kanam bu ñu nekkee jàkka ji mu nekk ci kanam bu sahaaba yi jiitoo mu ngi ci kanam benn bis toog nañ Medina ba caag rek ñu dégg benn lu mel ni dënn coow lu bëri ñëpp yeewu nit ñi naan boor bii la de dafa mel ne boor bi la daanu boor bi la wàcc kenn ñemewul dem ñi xawoon am fit tuuti daane nañ leen dem xool yi commencé di sori nit ñi ñu jékki-jékki daal di am na luy ñëw de am na luy ñëw ñëpp reculer ndeke yonent bi la ndeke moom jiitu na fa gaa yi bu yàgg ba xam lan la bay del si sallallahu alayhi wa sallam kon moom noonu la meloon jàngeen qissatu laylatul qadr xam ngeen laylatul qadr yàlla wanoon na ko yonent bi la war a fitna baaxu xam ngeen lu tax yonent fàtte guddi gi mooy sahaaba yi ñoo amoon problème di xeex di xuloo yonent bi dem di leen régler daal di fàtte bis ba kañ la mu ne ah fàtte naa ko de waaye xam naa ne daal ci fukki fan yu mujj ci weeru koor la waaye nag ban bis la moom fàtte naa ko ndax sama mbokk yi laa demoon di jubale di dindi leen di leen dindi ci problème ba yàlla fàttaloo ma bis bi loolu nag secret gu yàlla def la yàlla namm loolu pour nit ñi wër ko ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ba ñu tëdd di nelaw beneen bi ñuy jàng ci dund yonent bi mbokk yi ci coono yi mu def taarix jàngal ñu ko ne yonent bi dundam yi yii yëpp bu mu ci nekkee waaye ku amoon yërmande la loolu moo tax mu ne arrahimuna yarhamuhum arrahman ñi yërëmaate yàlla dina leen yërëm mu ne irhamu man fi ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf ndax waa asamaan yërëm leen alxuraan moo nañ yonent bi yërmande kese la fees ci lii yëpp ngeen di gis mu def aka mën a yërëm laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminin raufur rahim aa ca dëgg-dëgg yàllaa wax de ñëw na ci yéen ab yonent boo xam ne ci yéen la bàyyeekoo yàlla yónnewu leen malaaka pour mu nekk su ma yàlla yónnee woon malaaka kon nit ñi dañ naan moom dañ laa mën a toppandoo yow ngay naaw nga nekk lumière yow doo lekk doo sëy ndax malaaka du lekk du naan malaaka du nelaw malaaka xam du góor du jigéen kon kooku nit mun koo toppandoo moo tax yàlla mu ne min anfusikum ku mel ne yéen laa leen indil koo xam ne dafa judd ni ngeen juddoo mu dund ni ngeen di dunde mu am li ngeen am am ndey am baay ñu ëmb ko ci biir mu judd ñu nàmpal ko mu fer mu nekk nit mu juddoo ni ngeen juddoo mu dunde ni ngeen dunde mu am ay naqar baayam faatu yaayam faatu mu am ay naqar maamam faatu mu xiif am ay jafe-jafe feebar mu dund ni ngeen dunde mu faatu ni ngeen faatoo waaye moom moo leen gën nag yéen ñëpp la muhammad bashar bindeef wulida kama wulida al bashar dafa judd ni bindeef yi juddoo wa aasha kama aasha al bashar mu dund ni nit ñi dundee wa maata kama maata al bashar mu dee ni nit ñi dee waaye afdalul bashar lu tax qul innama ana basharu mislukum waaye yuuxa ilayya loolu moo tax mu gën ñu lu ma tax yàlla yónni ko pour ñu mel ni moom kenn du nekk naa man mënu maa roy yonent bi ah lu tax nga ne yonent moom daawul feebar loolu du dëgg yonent doon feebar man mënu maa mel na yonent bi lu tax ndax moom kat amul ndey amul baay loolu du dëgg papaam Abdallah la tudd yaayam Amina la tudd man mënu maa mel na yonent bi ndax da doon julli guddi lu tax daawul nelaw te man damay nelaw du dëgg da doon nelaw lenn bi sax nelaw na ba ñu noor du salaatu mu def ñaari ràkk daan ne xaaral ma tëdd tuuti mooy ñaari ràkk sunna yooyu nelaw sunna boobu ñuy wax nga tëdd sa ndey joor bilaal moom mujj ñëw naan ko asalaatu xayrum min an nawm looloo ko ci dugal de baat boobu bilaal yi di dugal ci ci noot loolu moo ko ci dugal ci bilaal la bàyyeekoo asalaatu xayrum min an nawm yonti dégg baat yi rek daal di tëb daal di ne eh bilaal dugalal loolu ci noot bi dugal ko ci dugal ko ci loolu moo indi asalaatu xayru min an nawmi fajar kon yonent ñëpp ko mën a roy ñëpp a mën a mel ni moom ndax yàlla daf ko bindaale mu nekk kuy yërëme waaye wa adaala ku maandu la woon sallallahu alayhi wa sallam ñëpp moo leen gën a maandu yonent bi amoon na gan tudd safiya ayewul woon ci moom yonent bi itikaaf ci jàkka yi jàkka yi ci fukki fan yi mujj ci weeru koor xam nga ne fukki fan yi mujj ci weeru koor may nañ nit mu itikaaf yonent bi itikaaf soxna Safiya ñëw seeti Safiya ñëw seeti bintu Xuyay mu waxtaan ak moom lu toll ak waxtu xaw a guddi mu génn ci buntu jàkka ji xam ngeen ne ku itikaaf du génn ci jàkk mu taxaw ci buntu jàkka ji rek mu seen ñaari sahaaba ci waa Medinatu Munawwara di romb teg tànk gees teg tànk gees léeg ñu taxaw mu ne kaay la ñu ñëw mu ne safiya la de safiya laay waxal ñu ñi subhanallah subhanallah yow yonent lu tax ngay wax loolu mu ne inna seytaan tajiri ala ibnu aadama majara dami seytaane day daw ci yaramu nit ni deret bi di dawee damay bañ ngeen yaakaar ne yonent bi dafa taxaw ak benn xale bu jigéen kii safi yàlla gis nga maandute la bu ko neexoon loolu du ko ci fekk yoonam nekku ci waaye day bañ ñu ne yonent bi nga xam ne moo ñuy tere nangam moom de ma nga ca ki nga xam ne moo ñuy yar ki nga xam ne mooy sunu sëriñ ki nga xam ne mooy sunu kilifa waa tax mu woo leen ne leen eh ñu gestu mu ne kaay leen ñu ñëw mu ne safiya la safiya nuyul sa ñaari mbokk yi ñu xam ne yow la ñooñu ne aawus billahi mu ne leen déedéet du yéen ñaar de mais seytaane laay bañ mu yàq seen xel yonent bi dafa maandu woon mbokk yi dafa maandu yemul ci maandu te gi waaye moom yonent zahid dafa dudd woon adduna omar ibnul xataab fekk na ko mu tëdd ci basang bu wow koŋ ba faari tërëgën man ko cor omar nu mu ko xamee dafa ñëw fekk yonent bi tëdd mu ñëw ne asalaamaaleykum yonent bi jóg toog daal di ko ne jàpp loxo omar seen yonent bi faari di reetal ndax basang bi mu tëdd ni mu woowee Omar daan ne yonent doo bàyyi ma dugg ci kër yi ku ma fa mbàjj mu ma fa fekk ma yëkkati ko indi ko mu ne loo koy dee mu ne ma lal ko fii ba mu tegaloo nga tëdd ci ndax nga tëdd fu nooy yonent bi xool Omar ba ci yàgg mu ne Omar maa lii wali dunia mu Omar man lu ma booleeg àdduna man yonent maanaa innaka raakibin istazalla taxta sajara summa qaama fa tarakaha maa ngi mel ne benn waay bu doon dox ba sonn daal di gis keppaar gu féex mu ñëw féexlu ci waajo yi bu féexloo ba coonoom dem nu muy def du jóg dem yonent nee na noonu laa meloon damay jóg dem adduna bi noonu laa fi mel man nekkuma ci adduna lu nooy moo ne yoon dafa dëdd woon adduna bi muy génn adduna juróom benn dërëm la bàyyi mu xam ximmiliku mu ne Aïcha ñaataa fi nekk mu ne ko juróom benn mu ne saraxe ko Aïcha ne ko suba amuñu lu ñu lekk lu ñu ndekkee de mu ne Aïcha saraxe leen lii yow Aïcha yéen yéen ay mbokk Yusuf ndax yéen a fitnaaloon Yusuf yéen jigéen ñi saraxe li nga ci teg kàddu i laa di saraxe juróom benn dërëm yi yonent bi muy génn àdduna bàyyiwul benn dërëm ci àddina bi bàyyiwul dërëm ci àdduna wala moo wane dafa dëdd woon àdduna dëddu àdduna bi moo lay wan ne yonent da doon war mbaam ndax dëddu àdduna wallahi bu bëggoon gëléem gi dàq ci gëléem yi ñu indil ko ko wallahi bu bëggoon fas bi dàq ci fas yi ñu defaral ko ko ba mu rafet ñu indi ko te bu ci yéeg or la ñuy def filiane bi muy toog kaan bi mu yéegee ci kaw ñu def ko or sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent mbaam la doon war yemu ci war mbaam mi da doon yéeg mbaam bi pare teg ci nit ci ginnaaw Abdullah ibn Abbas dañ koy jàngal hadis bi ci mbaaw kaw mbaam la ko jàngal ko dafa yéeg ko pare togg Abdullah ibn Abbas ñu dem ba jàng mu ne ko Abdullah ibn Abbas kaay ma jàngal la mu ne ko loo may jàngal mu ne ko isa saalta fasalillah saa yoo amee aajo di ñaan ñaanal yàlla bul ñaan kenn wa isa staanta fastain billah booy sàkku ndimbal bul sàkku ndimbal ci mbindeef yu abdallah ibnu abbas sàkkul ndimbal ci yàlla wala yonent waaye mu ne dafa dëdd woon adduna mbokk yi juróomeelu tomb bu ñuy jeexale ci lan la ñuy jëlee ci guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam histoire jàngal ñu ne yonent alayhi salaatu wasalaam xeet wi dañoo war a jëlee ci moom yajibu an yataicha al umma risalataha iza aradat an taquuda bu fekkee xeet wi tey dañoo am jafe-jafe partout dans le monde ñuy parti partee jullit yi foo dem tey ci adduna bi dañuy noggatu jullit yi ak di leen dëkkal fu bon fépp fu musiba am dañ naan ay jullit ñoo ko def ba jullit ñi seen bopp sax ñu këfaale leen ñuy tuumaal seeni mbokki jullit ci ay information xam ne xamuñ ci dara dañu toog ci télé bi rek ñu dégg ñu ne jullit yi def nañ benn bomb ci jàkk jullit ñi def nañ benn bomb ci marché ñun ñu toog ci saal bi ku ñu waxoon say mbokki jullit ñu ngi ci jàkk ji demal nga rey leen ndax da nga leen dem rey leen mooy laaj yéen ñi nekk ci saal bi kuñ ne woon jàkk ji ay jullit a nga fa dama nga def fa bomb ñu dee ndax di nga dem waaw léegi lu tax yow nga ni nga nga seetal sa bopp nga bëgg a tuumaal ñi la ñoo ko def te amoo ci benn information amoo ci benn yaqin dañ laa tubaab yi rek ñoo la jox information te yow yow ndeysaan keroog ba ñu tumaalee Aïcha Diallo benn jigéen dafa wax dafa ko wax jëkkëram te ñu ne ko yow yaay mbaam yow yaay xaj yow ndax loolu di nga ko def mu ne subhanallah man loolu yéen kooku ne ko yow Aïcha la gën Aïcha la gën nak nga mën a safale sa bopp Aïcha yow wallaay wax la dëgg Aïcha ma gën de gis nga chaque jour jullit war a rafet njort xam nga aaya bi bi yàlla wàccee di tere loolu jullit lu mu wax jullit ñi bu ñu déggee loolu lan moo waroon nekk seen taxawaay zanna al muminuuna bi anfusihim xayra zanna al muminin la yàlla indi mi bi anfusihim xayra lan moo tere woon jullit ñi ñu rafet njort ci seen mbokk lu baax yooyu mbir yooyu buñ bëggee xeet wi avancé mbokk yi buñ bëggee an taisha al umma risalataha xeet wi dund risaala yonent xeet wi delluwaat ci mbaax gi xeet wi delluwaat ci njiit gi xeet wi delluwaat ci ay alquran bi yàlla wax ne kuntum xayra umma uxrijat linnaas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minu billah su fekkee lii lañ bëgg yajibu an taisa al umma risalataha buñ bëggee lii lépp xeet yi buñ nax suñu bopp ñun ñëpp dañuy delluwaat tënkuwaat ci message yu yonent bi ñu bañ a nekk fële yonent bi nekk fii di woote ñu nekk fële naan ko ñoo ngi ñëw ba pare jàpp ne ne ñun ci lañ bokk munul nekk yonent bi dafa toog ba caag mu ne kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba xeet bi ñëpp danañ dugg àjjana ba mu des ku bañ sahaaba yi ne ko yow yonent ndax nit dana bañ a dugg aljanna mu ne waaw ah kay ñu ne ko loolu nu muy demee mu ne man ataani daxal aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg aljanna kon mbokk yi juróomi tomba ngi nii yoo xam ne moom la ñuy jëlee ci judd yonent bi alayhi salaatu wassalaam juróomeel bi mooy bu ñu bëggee dund message ul islam ñu nekk xayra umma dañuy delluwaat ca yonent ga iza raghibta an tahi aziza mahaba boo bëggee dund tedd boo bëggee dund ñu wek la boo bëggee dund am jàmm jëmal nga ngoy ci message yu yonent bi risaala loolu dong mbokk yi moom moo ñuy indil jàmm àdduna moo ñuy indil jàmm alaxira mooy nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul bu leen jiitu yàlla ak yonent bi nekk leen seen ginnaaw kon jullit yi nañu jàngaat histoire yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañu jàngaat lan mooy dundam ndax dundam du ay kéemtaan dundam du ay def-defle moom yonent ñëw rek pour dund ci mujiza déedéet dafa ñëw jaaral jullit yi ci yoon woo xam ne yoon wu leer naññ la yoon woo xamante ne amul ay làmbatu déedéet da ngay jóg rek daa tegu ci raay bi daa dem lu yonent bi war a def pour l'islam taxaw rek yonent bi def na loo xalaat rek lu nit war a def ci luy tax islam tasaaro yonent bi alayhi salatu salaam def na ko izan ayuha al ahbab haadihi hiya baadu durus wal ibar fi siyari rasul fi zikra miladihi sallallahu alayhi wa sallam lii lenn la lenn lenn lenn laa wax de lenn la ci ay leçon ak ay njëriñ yu ñuy tiire ci fàttaliku judd yonent bi alayhi salaatu wasalaam hatta yastabayyana tariq lii nag waxtaan wax nañ ko pour mbir mi leer pour yoon wi leer wa tasirul umma ala hudan pour xeet wi mën a jaar ci njub min siyari rasuliha sallallahu alayhi wa sallam wa zaimiha wa raidiha wallahu as'al an yuwaffiqana ila alxayri allahuma amin mu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dëppali ñu ak yiw woowu yonent bi nekkoon ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëppali ñu ak yoon wi yonent bi alayhi salatu wasalaam jaaroon allahuma salli wa sallim ala abdika wa habibika muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum